internationale. C'est si internationale. abonné leen ci YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér mi ak ci bitim seneinfo.net ci safoo seneinfo point net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fa yéene leen defal tënkub xibaaru tey euh, lundi di 27 juillet 2020 dañ koy tàmbaleek xibaar bu tiis euh, di génn àdduna euh, kii di Babacar Touré nekkoon président directeur général bu groupe Sud Communication wante itam nekkoon fi ancien président bu conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA moom nag mu ngi faatu ci dimanche bi ci dimanche bi gannaaw bi nga xam ne daal ab feebar moo ko tëraloon rédaction bu Sene Info kon mu ngi bokk ak euh, naqar bi waa Sénégal di jaale famille bi ak itam suñu confrère yu groupe si Sud Communication ONG Jamra nag moom dafa génn di ñaawlu lii di série yi ñu wax rii yeewu leen ak infidèle mu ñaari série yoo xam ne yeewu leen ak infidel nee na daal série yooyu dañoo euh, jóg daal pour euh, di def li naan promotion ak homosexualité ak apologie adultère maanaam lu mel ni njaaloo daal ak euh, bu ñu sukkandikoo kon ci communiqué ONG Jamra boobu nee nañ daal kon série yooyu di yeewu leen ak infidèle dañuy def daal propaga propagande kon lii di homosexualité di ngóor jigéen ak it njaaloo ñoom nag euh, Mame Makhtar Gueye ak ay ñoñam nee nañ daal ñu ngi ñaawlu loolu bu baax a baax a baax te nee nañ jug nañ ngir dakkal daal yooyu yële série tolluwaay jàngoro coronavirus nag fii ci Sénégal euh, sup euh, kon démb am na ñetti nit yu faatuwaat te jàngoro ji waral ko fi mu nekk nii kon loolu day yóbbu ci lim bi ci 194 muy kon nit yoo xam ne faatu nañ te mbasub Covid 19 waral ko fii ci Sénégal bésub tey bii ñu def 1083 tests mu am ci 83 yoo xam ne dañoo positif 64 yi di ay cas contact suivi mu am 19 cas transmission communautaire ba léegi bésub tey bi am na 68 yoo xam ne dañ leen hospitalisé woon waaye bi ñu leen contrôlé ñoom dañoo négatif kon wér nañ wante ñoo xam ne ñu ngi réanimation bi fi jàngoro ji duggee nag ba ba sub tey bi Sénégal compté lu toll ci 9764 cas positif mu am ci 6477 yoo xam ne wér nañ 194 ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu nekk nii am na 3092 malades yoo xam ne ñoom ñu ngi sous traitement. actualité Afrique nag euh, li ci gën a fës mooy euh, ki nga xam ne mooy première ministre ki nga xam ne kon moo nekkoon ministre. de l'intérieur bu Tunisie di Hichem Mechichi kooku nag euh, kii di président kon kii di président kayit Saied daf ko nommé première ministre euh, kon euh, ñu jàpp ne kon ancien premier ministre intérieur bu Tunisie Hichem Mechichi fi mu nekk nii moom mooy première ministre bu Tuni bu Tunisie ñu ne nag pal googu nag li ko waral mooy bi nga xamee ne kon kii di première ministre Eliès Fakhfakh moom dafa démissionné xam ngeen samedi samedi bi weesu kon la démissionné euh, sam kon le 15 juillet le 15 juillet sax bi weesu euh, ki di ki nekkoon ancien premier ministre bi di Eliès Fakhfakh dafa démissionné euh, bi mu démissionné nag te nga xam ne affaire bi ay mbirum allégation ak conflit d'intérêt moo taxoon ak i daal ay ñàkk jiboo ci wàllum politique ba taxoon mu démissionné kon ci lañ fal kii di Hichem Mechichi Hichem Mechichi moom nag nga xam ne moom la ñu tabb premier ministre moom nag am na 46 ans nekk avocat de formation moom nag nekkoon na fii ci diir bu gàtt euh, conseiller kon kii di président bu Tunisie di kay Saied ba léegi dañuy def ci dañuy des kon ci information Afrique ak euh, lii di sommet sommet bi nga xam ne kon ay dirigeants ouest africains yu toll ci 15 dirigeants euh, Afrique de l'Ouest wala boog quinze dirigeants CEDEAO dinañ amal benn vidéo visioconférence muy ab waxtaan boo xam ne dañ koy amal ci internet bi euh, par conférence ngir daal xool nan la ñuy trouver ay solution euh, lii di crise bi nga xam ne am na fële ca Mali gannaaw bi nga xamee ne def nañ benn média gannaaw bi nga xamee ne kon am na juróomi chef d'état Afrique yoo xam ne sax président Macky Sall bokkoon na ci ñu defoon médiation te médiation bi mujjeewul jur dara kon nag euh, ñu jàpp ne ci lundi tey bii daal ci lañ war a def kon vision conférence boo xam nga xam dina dajale dina dajale quinze ci ay président Afrique Euh, CEDEAO espace CEDEAO bi ngir ñu xool daal nan la ñuy trouver ay solution jafe-jafe boobu am fële ca Mali nga xam ne euh, mouvement bi imam di ko jiite daal dañuy laaj euh, kii di président ba tekki ndombal tànkam tolluwaay jàngoro coronavirus nag ci Afrique ba léegi jàngoro ji fi mu ne ni kon jàngoro ji mu ngi. mu ngi bëgg am doole mu ngi bëgg mu ngi bëgg am doole ndax sax euh, compté nañ ba bésub démb daal lu toll ci 828000 cas confirmés mu am 16450 morts ci continent bi bu ñu sukkandikoo bi kon suñu confrère yi di Vo News organisation mondiale de la santé sax di waa OMS nee fi mu nekk nii daal euh, kon euh, évolution jàngoro ji mu ngi leen di bëgg a jaaxal fii ci Afrique dëkk bi gën a sonn nag ci Afrique ci coronavirus Afrique du Sud la nga xam ne ñu ngi am 434200 cas. am lu toll ci six mille six cent soixante cinq am lu toll kon ci six mille six cent cinquante cinq décès euh, ba léegi tam am na yeneen réew yoo xam ne tam jàngoro ji mu ngi fay euh, progresser maanaam mu ngi fay gën a am euh, doole ndax semaine bi weesu rek bu ñu xoolee feebar bi am na progression yu toll ci continent bi yëpp boo ko jëlee kon ci semaine bi ñu génn am na lu toll ci 30 pour cent de progression ci Kenya am na lu toll ci 31 pour cent progression. Éthiopie euh, feebar bi law na fa lu toll ci 26 pour cent Madagascar mu law fa lu toll ci 50 pour cent Zambie law na fa lu toll ci 57 pour cent Namibie law na fa lu toll ci 69 pour cent Botswana feebar bi law na fa kon ci biir semaine bi lu toll ci 66 pour cent. dañuy dem ci xibaaru àdduna bi ak fële ca Israël nga xam ne ay manifestation dafa am kon ci samedi bi daal ay manifestation yëngu nañ fa euh, di laaj kii di premier ministre ba kii di seen premier ministre daal di Benjamin Netanyahu kon daa am ay isra ay israéliens yoo xam ne kon jóg nañ ngir laaj ab démission ma loolu nag ñu ngi koy def gannaaw bi nga xam ne kii di Benjamin Netanyahu yoon daka yoon daal daka kon yoon yoon yoon dafa am ay jafe-jafe ak wàllu yoon euh, ñu jiiñ ko loo xam ne kon mooy corruption ba jot nañ ko sax inculpé kon ci mbirum corruption ak fraude ak abus de confiance moom Benjamin Netanyahu moom nag kon euh, ay israélien taxaw nañ daal di ko laaj ngir mu démissionné ñoom sax ñu ngi demoon ba buntu këram euh, bi ñuy manifester sax ba buntu këram lañ dem daal di manifester di ko yëg ay musiba daal te naan ko daal na quitté loolu di poste premier ministre ba léegi tam lii di gestion pandémie Covid 19 tam dañ koy ñaawlu nee nañ moom ni mu ko defee daal baaxul nee nañ parce que moom dafa teel a ubbi lii di économie. israélien bi ñu ne dañoo jàpp ne moom daf te loolu itam daa jur ay jafe-jafe foofu ci réew ma àdduna wërngal képp nag jàngoro coronavirus kon laal na fi lu toll ci 16 personnes mu am ci 9 yoo xam ne jot nañ see wér. 648 913 kon ñàkk nañ seen bakkan ci àdduna warngal képp te sabab di jàngoroy coronavirus bi États-Unis ñoo wéy di gën a sonn ci mbas mi ñoom rek am nañu toll ci 4 millions 312 841 cas confirmé mu am 149 145 américains yoo xam ne kon faatu nañ te mbasu Covid waral ko